matière bi ci mala lay ginnaaw ba ñu ko fàttee fees ko dindi ndawal li la cay des amaana xeebu na lool waaye buñ ko liggéeyee mën nañu cee jële produit bu am solo te bari njariñ lool produit boobule dañu ciy defar sac ay dàll ay meuble ak it yeneeni xeetu accessoire cuir lañu koy woowee ci kàllamay nasaraan fii ci réew mi nag der lañu ko tuddee njaayum der mu ngi ci bëgg a yàgg doonte bokkutoon benn yoon ci ay mbébétam bon njaayum der mi maa ngi ciy bëgg a yàgg bu dee fii nii c'est depuis 2004 parce que une vingtaine d'années environ vingt ans environ bon mën naa ni euh, jàng am na ci mais aussi tuuti hasard am na ci

amulment lay mën am der yoo xam ne pour saag la am der yoo xam ne pour dàll la am der yoo xam ne day mën dàllu góor dàllu jigéen am der yoo xam ne c'est spécialement fait pour dàllu jigéen c'est en fonction de euh, façon nit ki li muy liggéeyee fa ñi def maroquinerie yi ñi def cordonnerie c'est un peu différent quoi ku ci nekk ak façon der bi ngay liggéeyee. der bii nag ñu ci yëngu bari na muy cordonnier yi. maroquinier yi wala sax tapissier yi ku ci nekk ak la ko ca yitteel. ay magasin yu rañsaloo ci biti ak ci biir ñu ci seen ay ndaw yu liggéey ci wàllum derbi bi mbaa cuir bi. ci gis-gis bu njëkk mën nañoo xelmati benn industrie bu yëngu ci wàllum cordonnerie yi Nungifi, ngi ci Médina rue 11 angle 18. Tibir atelier bi société seetloo liguey bi bu baax ku ci nek ak ba mu téléphone Ali Lam Ha.

ci wetam Ibrahima cham momit di ab cordonnier. en 2010 la ñëw Medina ci cordonnier bi mën naa ne ñu ma ber en 2017 man 3 ans bi ma berew léegi yàggul 7 ans laa jàng liggéey bi ma berew léegi bu nekk 10 ans. man moment bi ni man ak sama apprenti ñi ngi am ay daal yu ñi sama boy bi moy tourner man may tëral affaire ni moy comme li nga fekkee lii moo tudd buude dañ ngay boudé ni moment bi ni ba mu pare ñu doora nem ci yenen ak yenen ak yenen comme ni mu melni ama tay dama jë njëkk a li ci suuf ci kaw ni amna leneen lu nekk ci biiram dama dag lool ba pare ma jël li teg ko ci yobbu ko ci ñaawkat bi bi mu ko ñawee aw ma yóbbu ci ñawkat bi man ma nekkaat ci lii nii lii dama jël ñaari affaire ma tegle ko dama jël lii ma teg ko ci biir ma jël lii ma teg ko ci kaw ma diw ko dagg ko mu ñëw ma fis ko gis nga pour mën ko dugal ci biir mu ko dugalee ci biir ma monté dàll bi bu ma ko monde ma jël talon bi ma teg ko ci talon bi nag diggante talon bi ak euh, kii bi ci diggante bi am na benn affaire bu ñu teg noonu ci biir moo nekk nii lii tamit kereb la tudd fi ci seen liggéey nag du ñàkk yenn saay ñuy wax ni des na am qualité Cheikh Tidiane Wade benn ci cordonnier di ci indi ay leeral liggéey moom des fois danay am yoo xam ne nii dafay nekk ay job original euh, liggéey yam nag yemuñu des nga utiliser benn job boo xam ne ki la koy liggéeyloo day bëgg lu yomb mooy mooy moo lay touché des fois nag nga dem jënd benn der boo xamante ni aussi der bu yomb lay nekk. askan wi nag seeni bëgg-bëgg dafa wute bu ñenn ñi tàmmoo dàll wude ña ca des importé moo leen gënal. waaw daal di wuute man moom laa taamu man moom rek lay sol parce que daal di chinois moom taamu moo ko daal man. soo gisee ma taamu dàll uude au moins ñu koy defar Sénégal duñ dëkk jàppale ki nga xam ne mi ngi sama wet moo ma gënal ki may jàppale ki nga xam ne day jëlee bitim réew ay bagaasam di ko indi mu chinois yi xalaatuma ko. dàll uude day faj tànk waaye dàll chinois moom day mettal tànk te tànk jër boo koy sol. Ah, man bi ñuy importer moom laa taamu bi ñuy importer moom laa taam parce que moo gën a am qualité daal moo gën a dëgër te dina yàgg ak yow waaw. man daal boobu laa préféré daal ak saagam. jëw la am kalaame wante li leer ba leer mooy tàbbiwul ci noppi ku tër. métti mi doon na loo xamante ni man am naa yaakaar ne étranger yi nga xamante ni ñoo fii ñëw ñoom ñoo ñuy jàppale. mais parce que benn étranger yi nga xamante ni ñoom ñoo fi indi seen marchandise di ko jaay sénégalais yi foofu la ñuy jëndee ñun étranger yi nga xamante ni ñooy jugee ko seen réew ñëw. ñooy jënd suñu marchandise comme si que les guinéens maliens congolais burkinabé yi ñoo ñooy ñëw fii di commander ay mille 2000 paires 5000 paires di ko yóbbu seen village di ko jaayaat mais ñun tey chinois yi bu ñu fi indee seen matériel yi sénégalais yi daal yooyu lañ gën a bëgg que ni daal coréen yi te ñun ñoo leen gën a am garantie. boo ñëwee nag pour ma defaral la daal dinaa la wax li nga xamante ni looy mën a dégg la dinaa la defaral lu leer lu set lu rafet ba ku ko gis da yaakaar ne importé la. te it doxalinu ñenn ci askan wi bokk na ci lii di suuxal liggéeyu cordonnier yi ak ñu bari ci artisans locaux yi Matar Sylla di ko ñawlu

te village artisanal Soumbédioune dafa nekk village boo xam yàgg na fi depuis des années 1960 ba léegi suñu papa yi ñoo ko jiitu ba tey seen sët yi fii ñëw quoi mais depuis le temps ba léegi tubaab bi ñoo fi nekkoon daan ñëw tourisme bi tubaab yi liggéey Dakar fii dans les sociétés mais dans les grandes entreprises voilà ambassades yi ñoo fi ñëw di liggéey jënd si xam produit der yi xam tamit marque sac yi liggéey wala yiy imité ñu xam ni valeur am ak ni mu chéré à l'extérieur ñoo fi am occasion di ko jënd si.

mosuma gis koo xamante ni ci état la bokk sax ñëw def recherche ci uude yi may félicité journalistes yi yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk si média bi tey fu ñu mënta nekk yéen yéen a ñu fa yeggale mais du état. bon def nañ fi ay manifestation yuuxu nañ jooy nañ fi depuis boobu léegi daal digg nañu jox nañu ay fichiers pour ñu remplir identifié wu ku ci nekk sa place sa liggéey laaj sa numéro mais. ba léegi ni ñi ngi xaar seen ndimbal jëndaguñ ko nag quoi ñi ngi dundee yaakaar ne jëndaguñ ko. amaana sax ngir taxawu ak dooleel ndaw yi di yëngu ci wàllu métier wu aar yi nguur daal dinay samp benn agence tuddeeku ko APDA ñu seeti njiital agence bile ngir mën a waxtaanee jafe-jafe yile artisan yi di dund. njiital agence bi dal dinay indi ay leral te yit dalal xelu artisan yi euh, dañu nekk ci processus euh, le président de la République a décidé de donner au secteur de l'artisanat 30 milliards loolu seetlu nañ ne amul benn secteur bu ko am kon mën nañu wax ne président cëral na leen 30 milliards yi nag xam nga président du jël rek 30 milliards jox ñu ne leen dem leen ngeen wër dëkk bi di ko joxe euh, dafa teg ay ay ay ay euh, structures yoo xamante ni ñooy saytu loolu par le général Ndiaye ñun li ñu war a def ñu def nañ ko daanaka pare nañ maanaam ubbi liste yi artisans yi bindu ci chambre de métier yi ak ci lieux yi nga xamante ne moom la ñu wax ne ku fa dem di nga bindu Sénégal yépp ñu ngi bindu ba bind bi samedi bii passé. la bind bi jeex ñu xayma ñi bindu génne doublon yi ñi bindu ñaari yoon ak ñetti yoon ak ñeenti yoon bu ñu paree ci état yooyu doog a mën a jël état yooyu jox finance finance mën a mën a fay fi mu ne nii desul lu ku ci nekk euh, xool sa téléphone yeewu xool sa téléphone gis sa ndimbal. mel na ni mbir mi leer na. file ki fan artisan yi mën a jot seen ndimbal di liggéeyum artisanat nak surtout ñi le fété ci walum cordonnerie ak maroquinerie bari na lu ci askan wi réere mbir muy métier bu ndaw yooyu lee gëstu te di ci daan seen doole am nak ñenn ci doomi réew mi di farataal dooleel produit yi bàyyeekoo ci biti réew artisan yi le nak di leen ñaax ngir ñu gën leen a gestu te jàppale leen sac bi boo xoolee cartable la quoi en crocodile lañ ko commencement ba fin derrière lepp fi lañ ko fi lañ ko fi lañ ko défaré té fi lañ koy tamit waaw bon da sac bi qualité bi mu am ak xama niñ ko ba ci biir ak compartiment yi nga ordinateur ce document de voyage mu nga def ses porte stylo lepp mu na nek ci biir té sac la bo de classe de haute dimension saag yi tey jii des grands présidents du monde dañ koy dañ koy yor dem diko jënd ci ay boutique ñun ni mun ka défar fini tayji tey Macky Sall sax waxuma le président Macky Sall bok waxuma sax yenn waykat yi wala yenn ki war nañ ko mun jël diko voyager. tayji lu melni kay ay Wally ay Pape Diouf le grand Youssou Ndour tayji war nañ mun ñëw fi si ñun jënd ay saak diko voyager partout dans le monde ñu xamni li suñu produit sénégalais de travail à la main. bo xolé da nga gis sen way wala sen clip yi wala sen concert yi def. ñuy sol ay grande marque yoo xamante ni saa yi lañ koy jëndee cher na non seulement am na suñu ñawkat yoo xam mën nañu ñawal yëre fii ñu sol ko ay ude daal yoo xam mën nañu defar daal ñu sol ko ay ude sac yoo xam mën nañu defar sac ñu koy gàddu tamit quoi ñuy promotionné suñu liggéey mais pourtant ñun dañu leen dimbali bi ñu amee conseil wala soir ñun ñooy dem jënd billet fekke ko di leen dimbali di leen yëkkati di leen publier ci MSN page yi mais ñun dimbali ñu en par contre quoi du leen gis ñu ñuy ñëw fii di jënd si wala dara doo fi gis ministre bi doo fi gis jaww ministre bi doo fi gis doom ministre bi mais bon ñu nag ñu ngi gëm yàlla rek di xaar tubaab bi mais yombul nag si ñun nag quoi franchement. matière bii di cuir Manam der ak ni artisan yi di jëfëndiko seen secteur bi nga xam ni dafa soxé loole lépp ñu ko doon waxtaanee ci seen rubrique panier de Soxna May di leen jox di daje ci beneen numéro.